asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku dunia yéen ñi seetaan seen chaîne leader bi nga xamante ne nii mooy 221 la chaine de l'indicatif ànd koog euh, seen chaîne euh, bi nga xamante ne nii mooy Yes Mail le nouveau sourire neewoon naa leen suñu ñëw fii ci Ziguinchor du neen ndax dañu fe fekk si koo xamante ne nii c'est un jeune bu ñuy wax Fallou Sylla créer mouvement am tuddee ko takku laxasaay tey nag mu ñëwoon fii di dox mbokk. seeti mbokk yi ñu fekk ko fii nga xam ne mooy këram mu dalal ñu nag dalal bi nga xamante ne nii kenn amu ci benn xel ñaar waaye fekk nañ ko fi ay ay jigéenam ak ay xaritam ak ay nawleem ak ay waa koñam nañ leen dalal nag ki nga xam ne moo ñu tax a jóge fee ba fii muy Fallou la gannaaw euh, ni ma leen ko waxee woon ci nuyoo bi mooy euh, un jeune engagé déterminé bi nga xamante ne ni fii la juddoo fii la màggee waaye ñëw ndakaaru di liggéey liggéey ba noppi nag dellu siwaat ci dëkkam dellu siwaat ci waa këram fi nga xam ne mooy Ziguinchor plus précisément ci sanc bi sanc ba ñu fekk ko fi nga xamante ne nii mooy ay këram ndax olof nee na balaa ngaa xam ndax yaa baax nañu ko laaj ay mbokkam waaye gis ngeen boobaak léegi li ñu fi dégg gis nañu boobaak léegi li fi xew waaye gis nañu it mu ànd ak ay jigéenam ñi nga xamante ne ñoo ko gunge bàyyiwuñ ko ginnaaw ci mouvement takkul laxasaay loolu nag euh, balaa maa tàbbi ci moom mi nga xamante ne ni moo ñu tax a jóg dañuy jàll ci ki nga xamante ne nii mooy euh, représentant des femmes de takkul laxasaay soxna si noo def. Euh, ñoo ngi lay dalal jàmm di la nuyu. maa ngi lay bu baax a baax. bëgg a xam yow la kan ak euh, seen engagement bi lan la envers seen frère. maa ngi tudd Khady Lo. Mhm. dëkk Santhiaba chef de quartier. bokk ci équipe bi ñuy naan ASC Korgo. Mhm. ñu ñëwoon euh, gis seen euh, frère def engagement politique am. Mhm. fas yéene jàppale ki nga xamante ne nii mooy Amadou Ba PM. ban yëg-yëg ngeen ci am en tant que ku dëkk Ziguinchor en tant que dëkk Sànc bo waaye en tant que ak seen frère. xanaa kontaan rek ndax xëy na Fallou daf ñu fekk si mais fekkoon nañu ànd ak Amadou Ba. Mhm. waaye moom bu ñëwee fekk si ñu. Mhm. dañ koy gën a dooleel. Mhm. ndax lu dañu koy gën a dooleel daf ñoo njëkk a dooleel moom. dooleel bu ñu dooleel mooy dañoo créer sunu AIC. deux mille vingt et Mm-hmm. deux mille dix neuf la mais deux mille vingt et la ñuy jël mm-hmm. biñ ko créé deux mille vingt et mm-hmm. muy doomi koñ bi màggee fi juddoo fi jàngee fi xëy na ñun ko mag si âge tuuti mais xam nañu ni fii la juddoo fii la màggee mu ñëw nag fekk si ñu bim ñu fekk see ñu waxtaan ci mu ànd ceeg ñun dooleel ñu lépp loo xam ne yëkkati nañ ko daf koy songandoor ak ñun lépp loo xam ne bëgg nañ ko def te amuñu ci doole. Mhm. suñ ko wooyee tey tey tey tey. Mhm. mu réglé ko tey tey tey man de man du ma waxantu. Mhm. man laa wax man. du ma waxantu te ku dul dem du ma ànd ak moom. bu ma déggee sànq ba léegi jàng naan daf dooleel ci ban anam. daf ñu dooleel ndax ñun suñu ASC la ñu am. dëgg la suñu ASC daf fi judd mu nekk xale. gën a nekk ndaw bi mu ñëwee ñëwul sax dañ ko woo téléphone rek. ñu wax ko ko buñ ko ko waxee ñu proposé ko mu ne man de mm-hmm. lépp loo xam ne sanca ba chef de quartier da koy def boo leen ma ko waxee ma man ko mm-hmm. manuma ko yëpp dama ciy def sama doole mm-hmm. waaw euh, moom kon ci équipe bi la yem wala dafa yem ci socialam dafa dugg ci nit ñi wala daf ko yemale rek ci équipe bi wala mbooleem ko dëkk sanc ba mën ngaa wax ne mu ngi léegi non yemul sax si équipe bi rek yemul ci équipe bi parce que moom. Mhm. comme par exemple tey su ma nee yëg mu si équipe bi mooy quartier bi. Mhm. quartier bi mooy. Mhm. nit ki daal boo xasee ba am yitte rek. moo amoo frontière. waaw te yaruteem mun na ko may lu ne. ndax man bi ma ko xamee bi muy xale ba tey moom ak sama frère yi lañu. nii laa ko xamee. ni mu mel nii rek laa xam ci moom. waaw ndax mën ñoo xam yenn ci ay réalisation yi nga xamante ne nii Fallou Sylla moom def na ko fii ci dëkk bi. waaw lu mel ni man. fu mën a waxee si sunu ASC bi laa mën a waxee mhm. ndax tey jii lépp loo xam ne soxla nañ ko rek parce que bi ñuy def fii sunu final bi mhm. amoon nañu tuuti problème ndax ñun fii ñu bëri liggéeyuñu mhm. bi ñu duggee si sunu final bi ñu gañee lépp moo ko def du ci mayo du ci dàll du ci xaalis tax ñëpp xam nañ ne ASC fond la te ñun amuñu fond ndax sunu ASC bi muy doog a jóg amuñu fond mais biñ ko amee moom sunu xel dal na macha allah ah moo waral ngeen bootu yéen ñi jigéen ñi nga xamante ne ni yéen ay nekk ay amasanam ay leader am. Mhm. fas yéene ànd ak moom. incha allah incha allah pour 2024 bi. pour bi kon yéen daal pare ngeen pour ànd ak moom dëgg dëgg dëgg. pare nañu lool te jàpp. te jàpp ngeen ne Ziguinchor bi ak ni tension bi demee di ngeen fi am dara. non fii amul tension. Ah. soxna si. Hmm. rumeur la rek. tension fii. Ah. déedéet amu fi. Ah. bàyyil xel ci ginnaaw mhm. da nga daan toog ñii naan affaire rébellion bi mhm. nit nekk ba Dakar mhm. woo la téléphone laaj la démb de dégg naa nit nangam nga ne ko man yëgu ma ko te effectivement dafay fekk yëgoo ko dëgg la tension bi noonu la mel rek tension amu fi rumeur la rek rumeur la rumeur la dinañ ci gën a xuus ñoo ko déggandoo ay jigéenam nee nañ rumeur la waaye nak lees waxu kon xaaral ñu jàll seen leader bi nga xamante ne ni tey moo tax ñu ñëw moo ñu tax a jug ki nga xam ne mooy Fallou Sylla di doomu sant ba doomu Ziguinchor sëñ maa ngi lay bëggee. di la delloo ziar wér wér wér. ah di gis ni Ziguinchor gis na ñun ñu dalale. waaw ah, sant alhamdulilah. neexagum na trop. waaw waaye sëñ lan moo waral sa engagement politique. li waral maa ngi nuyu ñëpp ñi fi nekk. Mhm. di nuyu soxna yi nekk sama ginnaaw di nuyu représentant baax a baax a baax. Mhm. dalal ñëpp. Mhm. tey nag sama engagement politique. fii ci Ziguinchor. Mhm. mooy bëgg a développé sama dëkk. Mhm. bëgg a sama dëkk nag tax nag fu du tan mooy fi may njëkk tàmbale. Mhm. mooy fii ma dëkk. muy Santhiaba moom laa am moom laay tiitaroo. Ziguinchor laa am. loolu moo waral tey ma def sama engagement politique tey envers Amadou Ba. war koy jàppale te xam naa ne li ma bëgg moom moo ko mën. te moom bu ma jàppale rek ma jàppale dëkk bi. incha allah. yow nga ne Amadou Ba nga jàpp ne moo war a dimbali fii ci Santhiaba. incha allah je hausse le ton. ci ah. ban anam nga ko teg. laay jàppale parce que liggéey naa ak moom. Mhm. te xam naa ko je connais la personne xam naa nit ki. Mhm. te xam naa ne que ne moom bëggul lu dul jeunesse bi. Mhm. développement la bëgg. te dëkk bi fii dafa war a développé li am Dakar war na am Ziguinchor li am Guédiawaye war na am Santhiaba. pourquoi pas ambition la. bëgg-bëgg la sañ-sañ la Pastef la. dañ la takku laxasaay la ñu ñun ñëpp dañoo war a takku laxasaay bàyyi ñu kenn ak foo munti nekk. Mhm. quel que soit ton ethnie ta religion. Mhm. takku laxasaay dafa ëmb lépp. Mhm. donc tey loolu la woote tey te li ma woote te incha allah ci kàttanu yàlla. yow di nga ci gis loolu bu baax a baax te li ko gis incha allah ci kàttanu yàlla. waaye ban fit nga am jàkkaarloo ñëw fii nga xamante ne nag mooy Ziguinchor nag côté ku ne Ziguinchor nag ah xam ne fii du ñu ñeexu ñebbe kenn ñoom yow jàpp nga ne yow Amadou Ba mi ngay jàpp dafa mën a incha allah ci kàttanu yàlla. Hmm. day am dara. day am dara fii laa dëkk fii laa juddoo kenn ëppalewu ma fi dara. Hmm. dama koy waxaat ak ku mu munti doon kenn ëppalewu ma fi dara. jàpp nga ne ci jeunesse bi la koy amee wala ci paa yeeg maire parce que xam nga nag peut-être paa ñoom ñooy ñuy voté ah parce que jeunesse bi. est-ce que ñoom la fii wax ji wax ji man ko wax ji tontu na boppam. Hmm. waaw te dama la koy waxaat. Hmm. de passage maa ngi koy nuyu. Hmm. sunu maire bi Ousmane Sonko maa ngi koy nuyu bu baax a baax. mais li may wax mooy lenn. mooy que ne dëkk bi kenn ëppale wu ma fi dara. te maa ngi dégg fan yi ñu naan dañuy def report élection. nous sommes contre le report élection. moom. loolu yéen sax yéen du arrangé ah. incha allah ci kàttanu yàlla. waaw ak jeunes yi mu àndal nii. ak connaissance bi ñu am. Mhm. ak ci gox bu di mhm. dañuy ànd gañaloo fal Amadou Ba premier tour. ah. lii de moo ko ñemee ñëw ba digg Ziguinchor moom Fallou Sylla nee engagement politique am mooy Amadou Ba dafiy gagné au premier tour yéen ak internet yi yéen déggandoo Sénégal yéen a koy dégg àdduna may dégg. maa ngi leen xaar ci seeni commentaire ndax nee naa leen fii ñoo ko bokk fa mu leer kenn moomul kenn ay réew mi li fa lëndam rek day leer fàllu mm-hmm. jeune bu mel ni yow mm-hmm. lu tax ñu ne yow bëggoo lii pour jeunes yi pourquoi yow nga bëgg a fal ñoo xamante ne ay deux ay troisième âge lañ tamit waaw li tax ma bëgg ma jàppale war a jàppale deuxième âge troisième âge bi mm-hmm. mooy que ne ki nga xamante ne dama koy jàppale waxal naa la ko sax li ma gis. Mhm. li ma bëgg. Mhm. man moom moo ma ko mën a defal. ñu fi nekk bëri nañ. Mhm. ils sont waaye xam nit ki liggéey ak nit ki contacté waa Santhiaba gis waa Santhiaba xam waa Santhiaba xam li ñuy dund. xam li fi nekk te ñoom tamit ñu am lu ñu bëgg. am fu ñu bëgg a yegg kooku rek moom ma ko mën a defal monsieur monsieur monsieur Amadou Ba moom moom ma ko mën a defal moom sama chef moom moom ma ko mën a defal te incha allah ci kàttanu yàlla loolu day am. mbooloo mooy doole. Mhm. te incha allah li ma la mhm. ko waxee mooy leen Amadou Ba Ziguinchor kenn moomu ko. Mhm. Ziguinchor sa Ziguinchor da nga cee am wàll te incha allah vingt cinq février di nga xamante ne am nga ci wàll bu baax a baax a baax. leer nañ nañ moom nee na Ziguinchor kenn moomu ko waaye nee na Amadou Ba Ziguinchor première euh, le vingt cinq février da nga fi gañe gañe boo xamante ne ni bu dal xel la lees waxul lu ay di ñàmbat. ñoo ngi ci kanam àddunaa ngi fii lépp dina leer ndax nee naa la ak ñun léppay leer vaar la ñuy dem di dem di ñëw duñ ko bàyyi dañu koy topp topp waa sanc ba topp nag waa mouvement takku laxasaay ndax moom engagé wu na 100 pour cent envers euh, le PM Amadou Ba mi nga xamante ne nii daa bokk ci 20 personnes yi nga xam ne ñooy jongante ngir téye réew mi ngir jëmale Sénégal ca kanam moom loolu la wax ñoo ngi ko ci sant waaye ñoo ngi ko ciy gërëm. ndax fekk nañu ko foo xamante ne nii li ñuy wax fa lañ ko war a fekk fekk nañ ko ci ay mbokkam beddi yaanuwul wàll yaanuwul demul beneen dëkk fii la dëkk nangu na ne fii la dëkk tey dellusi ne fii mu dëkk waaye nag dëkk na dëkk boo xam ne ah ñun li ñuy dégg <laughs> ah Amadou PM <laughs> c'est un jeune engagé parce que celui qui s'engage ici à Ziguinchor en te disant que ne da ngay gañ da ngeen gaje gaje fii ah dina leer yéen ngeen ñeen fii ah. benn gannaa gaje fii de fii dégguma ngeen fii benn fee gaje de bu fekkee yow am nga fitile dinañ gañe incha allah ci kattanu yàlla incha allah ci kattanu yàlla PM mhm. dafay gañe loolu kay amul solo ñu si sa mouvement bi mbooloo laa àndal fii la yam sanc ba wala mu ngi ba dañ ko décentraliser mhm. partout ok waaw 38 quartier la de buñ mhm. ko fàtte quartier bu ci ne mouvement takku laxasaay mu ngi fa. Mhm. waaw te buñ fi jógee dañuy déplacé wu dem. Mhm. xool ñi leen tamit. seeti mhm. ñi leen ñi. mouvement takku laxasaay lañu kon dañuy jël ñëpp ëpp ñëpp booloo ñëpp. booloo ñëpp. ñëpp xaj nañ ci waaw. looy tàggal ko looy tàggal maa ngi leen di jox rendez vous le vingt cinq incha allah ci kàttan yàlla ñu ñëw ñu jox Amadou Ba premier tour di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di gërëm soxna yi fi toog yëpp Baay Faal yi fi toog yëpp di sant samay waajur bu baax a baax ndaxte ñaanal lañ ma bu baax a baax a baax. Mm-hmm. te incha allah ci kàttanu yàlla l'union fait la force loolu la ñu wax. Mm-hmm. mouvement takku laxasaay ca kaw ca kanam te maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di gërëm soxna yi di gërëm ñi nga xamante ñi fi nekk ñëpp. ak ñi nga xamante ne bëggoon nañ ma gis te gis nañ ma te waxtaan nañu ak ñoom échangé nañu ak ñoom. Mm-hmm. parce que dama waroon a voyager dama mm-hmm. waroon a dellu tey ci suba. Mm-hmm. mais malheureusement mais mais woon dellu parce que dafa am ñu ma waroon a rencontré. dañoo ñëw pour dooleel mouvement pour yokk ci mouvement bi. waaw cause pour laquelle moo tax tey ba heure bii nii maa ba léegi pare gu ma ak dama leen war a recevoir encore. waaw jërëjëf gannaaw uh, ni ma leen ko waxee nee naa leen ak deux cent vingt et nii rek lay doxee saa su ñoo ko bokk la tudd faaw mu leer faw ñu gëstu gëstuwaat des jeunes leaders ñu engagé wu envers qui que ce soit ñun dañuy ànd ak yow di doxantoog yow ngir réew mi ñëpp ko bokk kenn moomu ko hmm? ñëwoon seen fii ci suñu ñëw ci Ziguinchor lii lañu leen indi loon waaye duñ leen tardel dara lépp lu fi xew rek ci trois jours yi dañ leen ko jox ba mat sëkk en temps réel di leen wax prochaine fois prochainement ci feneen ba fii rek di leen gën a jaa ngeen jëf